Euh, merci ñu sant yàlla bu baax ñëwoon fii tey pour def li nga xam ne ci la Sénégal yëpp xëy tey mooy voté voté ngir tànn suñu njiitu réew comme niñ ko xamee ñëw nañ fii ci école bi voté li nga xam ne moom lañ gën a observé gum mooy ne dëkk bi ñëpp a ngi voté ci jàmm nit ñi aussi ñi ngi génn. loolu rek moom la ñuy wax ne ñu ngi ñaan mu continuer ci jàmm ak salaam ba ngoon ci jàmm alors di wax mbooleem population Kaolack rek ne lii ñu xëy nii tey devoir la ci bépp képp koo xam ne sénégalais nga wala ngay sénégalaise dañu war a voter parce que lii juróomi at yu jëm suñ kanam dañoo war a natt xool kan lañuy ñuy dénk suñu bopp mu nekk lu am solo ci askan wi nekk lu am solo ci réew mi loolu moo tax ñun ñëpp comme niñ ko defee ci fan yii yëpp passé ñu àndawandoo waat ñëw fii nga xam ne fi lañ doon voté voté bi ci jàmm di ñaan yàlla yàlla élection yi jeex ci jàmm waaye di ñaanal suñu candidat itam incha allah comme ni ko ñëpp jàppee mboolem xaytukat yeeg nattkat yi ni ñu ko jàppee ñoom ñëpp ne gis nañ ne élection bi ci premier tour lay jeexee ñu ngi ñaan yàlla mu jeex ci jàmm incha allah président Amadou Ba jàll comme ni ko ñun ñëpp xamee ak ni ko réew mi yëpp nattee yoon jàll ci jàmm ak salaam dès le premier tour incha allah bala ñoo nag wax jooju leer naañ ci kanam askan wi yëpp.